ñeenti waxtu ak genn wàll ci rajo Futur Media ñu leen di nuyu di lu bu baax ànd beeg nun xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey li ci gën a fes Amadou Hott pétrole bi njëg gi daanu bu baax a baax ci àddina bi moo tax ñu bëri di sàkku njëgu courant beeg pétrole bi wàcc bokk ci Momar Ndaw bu Ascosen ministre de l'économie munta wàcc léegi léegi Amadou Hott ci biir xibaar yi. tefesu beeda aan coow li jeex na tàkk léegi ARMP jox na marché bi waa Ludwig Pfeffer waa CSE ni bii yoon du ñu def ab recours reportage ca gox ba ci biir xibaar yi ma du Diop bu ISEC euh, subaak jàmm lañ koy euh, mujj defeere dàq nañ ko nag tey ji ñu doon ko xaar mu war a janoo ak procureur ca mbiri gone gu jigéen ga woon ca appartement ba moom xale bu jigéen bi jamono ji ñu koy yóbbu seeti ko ca kër docteur wàllu yoon ba tey diggante Pape Alé Niang ak Cheikh Omar yoon daal na koy dàq ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars ministre bi citation directe journaliste bi ci livre bi mu bind ci aw yorinam ca jamono yi ba muy nekk directeuru kudd ñaareelu pàcc bi tàggat yaram ligue européenne de champions tey jii Tottenham di fekki euh, RB Leipzig di match bi nga xam ne moom rek la ay nit di fekkee tey jii e, ndax euh, Valence Atlanta da koy fekki waaye itam ñoom foofe mbooloo ma aaye nañ leen stade yi gannaaw bi la marché ñuy waxtaane mango ji li ci yéenekaay yi ak Mouhamed Ndiaye la ñuy tëje njëgu barigo patrol bi nga xam ni wàcc na bu baax a baax ba fi mu ne nii ay boori 30 dollars yu teg tuuti lay jar tax nag ñu bëri yaakaar ni comme fa la gouvernement bi sukkandiku woon yokk essance bi yokk courant bi mu wàññeeko ko bu baax a baax dañoo war a wàññi ministre de l'économie nee na nag du doon loo xamante ne nii fi mu ne nii luy mën a nekk lay doon Amadou Hott ci micro Pape Balla Gueye toog nañu lu yàgg mu continuer di baissé xam nga léegi ñu à peu près cent dollars booru Sénégal yëpp ak déficit bi Sénégal am ñu mun ko rattrapé peut-être on peut envisager mais en tenant compte du fait que ne aussi pays mën na yokk tout d'un coup donc vraiment équilibre la boo xam ne il faut que état bi def ci attention bu baax balaa def erreur peut-être même wàññi bi nu wàññi woon en 2017 peut-être que ne xam nga président ci yéen population qui nous bénéficions de l'universal à l'époque, on a moins de l'électricité, 10% du poids de Même nous avons atteint nos voisins, c'est pas facture, Moi, je voulais mets cette fois, il faut que attention, euh, Donc, pour l'instant, nous avons un impact directement sur nos factures, dans le court terme, nous avons un impact sur les Nous avons un impact quand même, qui recettes fiscales un petit peu en fait ci da day en fait comment subvention de l'union jox donc ça veut dire que l'État bi transfère les doon transféré Senelec ça veut dire que nous, mën pour tout le monde. mais là aussi en même temps on le pas contre vous, parce que TVA day ce que fekkee prix pris, pour nous, donc il faut cacher calculer net service yaa service finance et économie ñu pour nous à peu près des faits scénarios. net net est-ce que c'est un gain pour le Sénégal ou est-ce que l'on ramène ne pour un gain mu nekkoon Amadou Hott ministre de l'économie ñu jéglu ci naqare dégg gi tey jii mu nekkoon nag ci ndaje moo xam ni ko waa Haut Conseil des collectivités territoriale ñoo ko doon seq ñu doon ko ci euh, déglu waaye nag waroon a gis-gis ak kii di Momar ndaw bu ASCOSEN moom dafa jàpp ni fi mu ne nii njëg yi dañoo war a wàññiku dëgg la bu njëg yi wàccee ci bitim réew war na wàcc ci biir réew moo ko wax ñeenti semaines yu ne dañuy calculer li euh, pétrole bi war a jar ci mbirum maanaam ay gasoil ak essence ak yooyu ci biir réew mi su ko defee bu fale changé ñu changé mais gis ngeen ne nag day bari lu muy changé di yéeg bitim réew te yéeg bi du automatique parce que diggante bi ñuy waxee ne njëgu baril bi yi ñuy manqué ci biir suuf si yéeg na prix bi nga xamante ne bi mooy prix bi ñuy jaayee li nga xam ne defar nañ ko ba param bi itam diggante mu ak li muy jar ci pompe bi réew yi dañ ciy dugal seen i tax ak yu mel noonu donc ce qui fait du immédiat bu fekkee ne bees bi moom dafa maintenir àla kulia li ñun dañu continuer comme ni ñu daan def rek euh, demander pour que ñu wàññil ko consommateur bi noonu lañ defoon ba tax en 2017 ñu amoon wàññi boo xam ne mi ngi commencé woon ci 2016. ci gàttal daaw faw wàññi am. ci gàttal faw wàññi am xam naa du nekk nag jooni jooni jooni jooni jooni nii. mu nekkoon euh, Momar Ndao ngeen dégg ki doon euh, taataan ay kàddoom euh, di euh, Amadou Sabar Ba moom ministre de l'économie tey jii ci ndaje mi nga xam ne nag seq na ko ak naataangoom bu yor wàllu santé ñuy xool fa ca gën a sooxee ak di def ba du ko lottal wax na ni dana am barab yoo xam ne daal faw nag moom mu am fa ay coono ndax Chine foofe la ëpp ci liñ daan jëndi daanaka fi mu ne nii dina xaw a doy waar ñu ànd ci ak Nafissatou Sylla plan ministère bi yor koom bi di woo bépp secteur mu daal ciy sóob loxoom loole nak ngir dal di gëna mëna yok a koom yi nga xamantane mom lañ ci duggal ngir xeex li di coronavirus bi ñu ànd ceeg ministère de la santé et de l'action sociale ngir ministre de l'économie l'olé dafa doon lu war Amadou hot pour le gouvernement du Sénégal. gouvernement bi kay li wara jitu ci ay mbiram moy fexé ba ci walu kom kom ñu baña am ay gak gak ndax nak feebar bi bu lawé ah mën lu bari de wax dëgg. atténuer son impact sur notre économie. ngir Amadou hot nak. koom yooyu ñu ci yokk dana tax ñu daal di gën a mën a fagandiku ba lii di Covid 19 di bañ a law ci réew mi. je pense notamment ci wàllu koom-koom wax dëgg tourisme ak transport feebar bu ñu ne day law ah mën naa indi gàllankoor yu bare bare te lu ñu war a jël ay pexe la ndax feebar bi mën na ko gàllankoor dëgg-dëgg ndax nag wàllu dem beeg dikk bi moom bu ñu ko gàntalee rek euh, du baax. la demande mondiale. Khalad bi ni ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sar, deful Rafet Rafet Louko. est déjà day déjà solidarité gouvernementale mais partenaires techniques et financiers yi xamante ne en train de réew mi itam dañoo am ñaari tutelle ku le secteur bi ngay jàppale sa tutelle la mais ministre de l'économie de la coopération et du plan parce que dañu des coopérations, biir coopération moom itam sa tutelle je suis day firndeel ne effectivement li ñu def am na solo lool am na ñu nekk ci force de l'ordre et de sécurité yi am na ñu nekk ci secteur agriculture am na ñu nekk secteur élevage am na ñu nekk ci euh, secteur privé et cetera. taxawaay boobee itamit la suñuy partenaire économique dal di am wa système des Nations Unies di rafetlu itam doxalin bobé atelier bi le doonoon occasion ngir ñu dal di mëna ñaaxalé ñaaxaale bépp sénégalais ci bépp secteur bu mu bokku mu daal ciy soob loxoom. mu nekkoon na fi sattu si la ci wàllu wi la ñuy des ba léegi nde jëndkat yi daan dem ba Chine jënd ay conteneur indi ko fii marché ba nga xam ni moo gën a siiw ci njaayum portable ñu koy wax nag euh, marché bi nga xam ne moo nekk ci euh, marché euh, Alizé Salimata Aw dem na fa waaye nee nañ daal fi mu ne nii yëg nañ bu baax ni gëj a dem gi fi mu ne feeñ na ci njaayum portable yi reportage. ay client yuy ñëw ci marché ba di wut téléphone wala ya andal mu ngi ci marché Alizé muy bërëb boo xamante ni ñëpp a ko xam si njënd ak njaayum téléphone wante fi mu toll nii njaay mi doxut li ko waral moom mooy lii di coronavirus Moustapha jiite kenn ci ñoom yor fa boutique di ñu xamal ni fi mu toll nii lépp ni tekk. ñun suñu bagage yu bëri day am yu jóge foofu mais temps yi moom bagage dafa manqué bu baax a baax accessoires yi téléphones yi rajo oto tout ça yooyu dafa manqué bu baax a baax baax am na sax buñ fi yoroon mais instant bi moom bagage yi manqué na ban sentir ko moom affaire moom laal na fi fépp moom wax dëgg faa la mais am na yeneen dëkk sax mais siin mooy gën a lii quoi. siin mooy gën a accessible li nga mën a def siin. yeneen doo ko mën a def si yeneen dëkk yi quoi waaw day seet trop trop par rapport ak si. Lamine keneen ci ñoom moom nag mu ñuy xamal ni li tax marché bi ni tekk tekkaaral grossistes yi ñoom ñoo faral di am marchandise te fi mu toll nii yëf yi dafa yokk lool. ñi amoon stock bu njëkk daal instant bi moo ñooy jaay loolu moo tax nag affaire yi yokku quoi comme exemple loo daan jëndee cinquante mille instant yaa ngi koy portable boo daan jëndee cinquante mille yaa ngi koy jëndee. cinquante cinq mille wala soixante mille. fa yokk kay cinq mille wala au moins sept mille cinq cent. waaw waaw ñun moom bu ñu ko gisee dañ koy jënd mais pour le restant nii pour nga gis ko sax problème lu ni mel la ne mekk si jaaykatu appareil électroménager yi fii nag moom li leen di gën a sonal mooy nee na client yi bëgguñoo comprendre benn yoon. waaw télé frigo yi téléphone yi accessoires yëpp daal waaw instant yi moom taxawal na ko carrément ndax client yi yenn gaa yi jot a wàccee bagage dañoo yokk bagage. fi mu toll nii nag yu ci bëri ci suñu commerçant yi ña ngay ravitaillé woo ca Chine ngir seenim njaay te foofee sa Chine lépp a taxaw ba tax na loolu day feeñ bu baax ci commerce bi fii ci marché Alizé ñu ci bëri nee nañu gisuñu sax lu ñu jaay. ñu des ci wopp ji ba léegi léegi nag wopp ji ci jëmmam ak euh, jeexital bi ci nit ñi ñeent ñi nga xam ne testé woon nañ leen ñu jóge ca kees ñooñee nag négatif nañ leen xam ngeen ni yegg nañ leen xabaar bi démb ci euh, tàkkusaan médecin chef district bu kees Moustapha Faye di dalal xelu population yi bu baax a baax ni fim ne nii matuwaay daal jël nañ li ci ëpp ngir mën a jànkonteeg euh, jàngoro ji ñu déglu ko ci micro Cheikh Anta Diop. dimanche ci bëccëg cellule d'alerte bi nga xamante ni mooy toppatoo. gestion épidémie boobu ñu wax euh, coronavirus euh, dañ ñu woo ne ñu euh, am na kat ñeenti malade yu ñëw ci benn hôpital bu nekk Thiès muy hôpital Saint-Jean-de-Dieu ah, médecin bi leen gis dafa jàpp ne dañu am jàngoro boobu ñuy wax coronavirus. ci saase la ñu jokkoog médecin bi leen jot bi ñu ko laajee li mu wax dëppoo ak li ñu jàpp ne suñ ko gisee rek mu méngoog jàngoroy coronavirus. Eh, ci saase la ñu ànd équipe d'investigation bi nga xamante ni man la ak pharmacien biologiste bi ak point focal surveillance épidémiologique ñu ànd ak médecin chef de région ak service d'hygiène hôtel ba ci lañu dem ci hôtel bi ñu nekkoon pour expliquer leen lan moo tax ñu ñëw fii dalal seen xel ber leen def prélèvement yi maanaam képp ku ñu njortu ne da nga am jàngoroy coronavirus dafa am ay analyse yu ñu lay defal donc dafa am ay prélèvement yu ñuy def ci biir bakkan bi ak ci biir gémmiñ bi biñ ko defee ànd ak waa service d'hygiène pour sécurité bi ci war yépp en matière de prévention et de contrôle de l'infection ñu def prélèvement ñeenti prélèvement yépp ñu yóbbu ko Institut Pasteur ci saase prélèvement yi yegg ci ngoon gi euh, altine ci suba la ñu jot résultat yi ñeenti ñu njortu woon ne yëpp dañoo am jàngoroy coronavirus kenn amu njukk résultat yi dafa négatif ci lañ leen bàyyi ñu dellu ñu delluwaat ci hôtel ba waxtaan ak ñëpp ne leen ah lii kat lañ njortu woon waaye yàlla def na du loolu donc loolu dafa bokk ci ni ñu organiser wu fii ci district sanitaire Thiès ci région bi yëpp. ñeent fukki minute ak euh, benn moo tegu ci ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. rajo askan wi. ñu wéy ba tey ci xibaar yi wax ca pollution bee ann tefes ga nga xamante ne nii nag eh, ñu bëri jàppoon nañ ni dafa war a mel ni Copa kobana di plage bi ñuy tagg ci àddina ak eh, setam ak rafetaayam te bu nekk ci Brésil xaalis bu bari nag waroon cee dem boobu ba léegi yéeg ak wàcc bi coog mbaalo diggante waa CSA e ak waa ONAS tax nag eh, tey ji ARMP daal di jël dogal bi ci mujj nag lépp jeex na fi mu ne nii nag dëbb nañ ko ba mu tees tax. ñu daal di dem ca gox ba am ci ñu fa dëkkee ñoo xamante ne nii noyyi nañ bu baax a baax a feex sant yàlla bu baax waa CEC itam ni bii yoon nag du ñu def rek recours Kumba Sanjaan fay Tchouli, euh, li euh, agence de régulation des marchés publics euh, joxaat Boblep marché Ludwig Pfeiffer kërup liggéeyukaay boblep lépp fare Allemagne mën Tambali, tàmbali Niel des pollutions bu beeda aan ay recours jóge woon ci yeneen kërup mu ci compagnie sahélienne d'entreprise wante CSE Melnani, na ni kuy teg lépp ci suuf nee na réclamation du ko ci fekk amar li lettre ARMP réclamation du groupement bi defoon ONAS chef de file groupement bi moo ko def def ñaari maintenant ARMP lan lay wax day wax ONAS mu xoolaat évaluation talaat xoolaat évaluation évaluer ne risques yi évaluer ne comment comment on dit porter projet bi intérêt projet bi ñoom jël nañu décision ñun di ñu defaat réclamation l'ARMP nee na loolu mbir yi fukki at gannaaw gi l'office national de l'assainissement du Sénégal di rafetlu boobu lépp dogal bu ARMP na Gagny saxo mooy directeur général ba ci am ak kontaan mais mbégte ak kontaan surtout pour ñi dëkk Hann Thiaroye Mbao ñi nga xamee ne mat nañu gën a wàllu million wu it pour projet bi nga xamee ne ñu ngi koy xaar ba léegi mën a démarrer ñun rek li ñuy def dañuy des jëmtu ci liggéey bi pour lépp jëm kanam kàddoom yooyu wéetu ci Mbacke Seck di wax ci turu ñu dëkkee ci la fa rek beeda an jàpp ne boobu lépp dogal dafay dëggal rek ne ci joxinu boobu lépp marché onance sàlloo nag yoon mbégte bu njëkk bi mooy wane ni que mbiru marché yi suñu dëkk aw na li ñu confirmer li onance waxoon jox ko même entreprise ñun nag yàkkamti woon nañu lii jeex ba projet bi démarré. financement boobu lépp projet tollu ci juróom ñaar fukki

ñu ni col de l'utérus ba dafa génn loolu nag euh, ñu ni ma nga ca hôpital Albert waaye waa hôpital Albert Royer nag ni loolu ñoom gisuñu gone gi dégguñu ko leeral yi ñu ci indi professeur Malick fay mooy président commission médical hôpital bi ñu déglu kook Salimata Aw xibaar bi ñu jot jël ay image yu mel noonu di ko def ci réseau sociaux yi que ni waxtaan naa ak chef de service su chirurgie waxtaan naa ak responsable SAU waxtaan naa ak chef de service responsable pédiatrie ñoom ñëpp li ñu wax mooy lii

sa nit ki dañ ko war a sàng sutura et médecin pharmacien dentiste ou paramédical bu nekk xam na ne euh, sàng sutura nit loolu am solo la quoi ñi ko filmer moom seen responsabilité la ñu engagé ah te bi koy def aussi defuñu ko ci turu personnel médical ou paramédical bi nga xamante ne ci la ñu nekk donc encore une fois nañu def attention ci image yi parce que amul benn njëriñ ci askan bi. mu nekkoon euh, Malik Faye Albert Royer ndaw si nga xam ni moom la farwa farwa mu njëkkoon a am euh, jamoon paaka bi jam-jam yu métti itam faatu ca kees tey jii la ñu ko denc nag ci tiis woo xamante ne nii wu méttee métti la gannaaw résultat autopsie bi démb mu wane ni nag dañ koo jam ay euh, paaka ñu ni nag jotoon na wanu lor ba tolloon ji fukki semaine ak ñaar mooy yetti weer Cheikh Anta baagante di dem ci police centrale ñu bari nag dikkoon pour xool si ki nga xamante ne moom mooy Assane Gueye waaye jamono yi dañ ko jël yóbbu ko ci benn poste de polis boo xamante ne bëgguñu nit ñi xam ko ngir wàllu kaaraange. waa pour lu wax la est-ce que xam nañu ne na sa police centrale pour dem beneen police xëy comme dafa nekk ci loxo loxoy yoon yoon moo xam ni tax mu koy jëlee fii di ko yóbbu fële duñ ci mën a prononcé wu bu baax a baax parce que mesures yi tax ñuy def loolu ñoom ñoo ko xam mais pour le moment daal moom xam naa ne mi ci loxoy yoon. kenn ci ay jégeñalem dugon set ko bi mu génnee dé wax né Assane jamono yi dé sonu na lol gis na ko am nay gañu gañu sonu na trop échangeonte nañu man ak mom lim ma wax mom xamna né mom mi ngi réccu nit nak nit rek la mëna doon des fois nga gis ko xam bu défé limi def ba pare lay réccu. addu Touré di cousin Assane ma ngi nak masawu fami ñom marem di len jalé mais ray dafa metti mom mi ko def regretté nako ko nako wax parce que man lu fekkul ci liñ ma wax rek la mëna wax. mané bi mo duggé fofu wax ak maire bi waxtaan ak maire bi ma yow dof nga Marème mosulaa bëgg nee na ma loolu moo ko poussé nag bu buggee ne mu wàññeeku. Bàcc Taal mi nga xamante ne xaritam la lool wax ne nag tey jii dafa am ay jafe-jafe lu jëm ci wàllu bopp ba tax na famille bi ñu ngi sàkku ñu yóbbu ko hôpital ngir ñu mën koo faj. psychologiquement il a des problèmes. on entendre guñ ko parce que bi mu police bi ma ko fekk fekk ma ko ci biir giri dama ko fekk ñu teg ko à côté parce que xëy na peut-être état de santé am ni mu toll m tax. ñenn ci ñi de ginnaaw autopsie bi tey jii lañ ko fas yéene denc ci janaase yi fii ci RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Mamadou Diop directeur général lu ISEG di ab euh, école de formation mom nak euh, suba lay ak procureur de la république euh, ci mbir mi ñeel gone gu jigen gi ñuko ko da doon and ak mom ci appartement bu mu ko doon fayal mom xale bu jigen bi nak jamono ji ñu koy defal ay test xol ba xam lolé ñu doon seq lu mu jur mbir yoon ba Cheikh Oumar Anne ak Pape Alé Niang ñoom seen i seenub àtte ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars lañu ko dàq ngir ñu xool nu ñuy fayee consignation bi di xaalis bi ci war euh, directeur kudd bi woon nag da porte plainte journaliste bi ndax dafa jàpp ni nag euh, dafa àgg foo xamante ne nii sori na ci ni mu yore woon kudd ci livre boo xam ne da koo génne. tàggat yaram salaamaaleykum Abdou. waaleykum salaam El Hadj Macoumba ñu tàmbaleeg euh, football ca Europe coronavirus ji tax ñëpp tëju. lii bokk na ci nag match yi nga xam ne mooy yu Ligue ak Ligue 2 bu France yëpp la ñuy ndar képp kenn du mën a dugg dem seetaan yi nag wopp joojee nga xam ne moo lëm bi aduna bi mom moko waral ci Espagne sax match bi jëm ci huitième de finale retour diggante FC Barcelone ak Naples bobu itam dañ koy ndar kep ñu naan ko wi clos noné lañu koy euh, Ligue des champions bi di way tay ji ci huitième de finale retour yi ak euh, Leipzig mi nga xamné da fay dalal Tottenham euh, Valence ak Atlanta Bergam lay doon ci li nga xamné mom lañuy xaar fi ak ngone ci walu Ligue des champions. football am. waaw. Hmm, Babacar Sarr moom nee na yoonam newu ci. Babacar Sarr li muy euh, naqarlu moom international bu Sénégal le euh, moo di ne dafa am ñoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw di euh, jéem a yàq dërëm bokk na ci kenn koo xam ne ab coro mu doon bëggante ak moom mu koy jiiñ nag wàllu yakkataan boo xam ni kon tax nañu def benn man daa d'arrêt international ngir teg loxo doomu Sénégal boobule Babacar Sarr di indi ay leeral ci mbir mi ak Malal Junior Diagne. affaire u mandat d'arrêt bi samay avocat bi may waxee ñoom wax naa leen question yi ñu ne ma bon affaire u mandat bi ñoom ñom ñokay recevoir bu naré am lu ci mëna am luñ tek sama kaw ñom ñokay recevoir donc euh, lima mëna wax problem dama amone problème ak euh, ben euh, xalé bu jigen donc man ak mom donc ci luma ci jangat mom dafa dem pour jëm détruire pour jëm sama carrière ci di sosal ay affaire de viol yo am tane musuma ko musuma ko viol donc toute façon yag nañ ko dégg ci xalé yu jigéen tuba bi ak ci ñu leen di wala di leen tuumaal lo xamantene dafa ñuko pour jëm ci de l'argent ou par jalousie quoi parce que bo nek jigéen dem ta casé wu xam dañuy venger wala affaire en plus soutien ou journaliste donc euh, loolu la quoi ñuy détourné di wax léegi ça veut dire que donc yow yaa ngi ce sa club comment ça se passe là-bas ak eh, sur le plan sportif fan nga toll. ça se passe très bien maa ngi si jàmm donc eh, maa ngi suivre sama traitement maa ngi faju bu baax donc eh, légui suma suma faju en attendant ba xaw am ben espoir bo am tane entraînement momay may ak quelques affaires légui on verra après la suite lan mo ci am waaw peut être ma signer dans un autre parce que amoon naa ay demande club yu bëri mais comme étant blessé do jël benn contre de risque contrat quoi. instant yi maa ngi si maa ngi si jàmm maa ngi maa ngi sant bu baax. Mhm. ñu jàll ci làmb jeeg seen i jafe-jafe diggante seen beeg arbitre yi. arbitre yi nag daanaka jëm nañu ci li nga xam ne moo di wàllu yoon gannaaw bi nga xam ne am na ñeent ñoo xam ne dañoo dakkal seen liggéey euh, dakkalandi seen liggéey ñu naan ko suspension ci biir euh, wàllu làmb ji fii ci réew mi. am kenn ci ñoom koo xam ne daal nee nañu dootul laalab sifflet ci euh, li nga xam ne moo di arène bi giiru dundam ñu naan ko rajation kookee di Sitor Ndour bokk na ci ñi ci gën a siiw Umu Kalsum li Umu Kalsum li kon euh, déggoon ngeen ko ci suñu yeneen jéetaay yi ñu weesu Alaaji Makumba Bey muy doon waxtaane wàllu euh, jafe-jafe bi nga xam ne am na diggante CNG ak arbitre yu Sénégal hmm, diggante Baba Tandian ak maître Babacar Ndiaye daawut sedd euh, seddagul ba léegi ndax tey jii lañu waajoon atte bi waaye dafa am na mu mujj demee ba até boobee mujjul am waaye nag euh, nañu toog rek di xaarandi ndax ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars bi euh, lépp dina leer wala boog dinañu soobu ci boobu le procès Baba Tandian bi mu génnee lii la euh, wax Malal Junior Diagne procès bi dañ ko renvoyer jusqu'au 24 mars parce que maître Silva eh, ñaari avocat yi ma consulté maître El Hadj M. ak maître Silva maître Silva nak mom moo yore fond de dossier bi de maître Silva dafa amoon benen salle bu mu nekkoon euh, di fa plaider ben affaire familiale te instant bi ñu doon wo dossier bi pour plaider ko maître Silva mu ñu doon plaider euh, en même temps simultanément ci benen salle bi donc maître El Hadj demandé le renvoi du dossier en attendant puisque boobu yorewul dossier bi ce qui est insolite moy la partie adverse gis nañu ko comme maître Silva nekk fa bon ñuy cëppi di insister pour que retenir cette affaire là alors ma me maître El ko nañ retenir parce que je connais le fond du dossier diffamation bobu ñuy wax et eh bien man ko balayer de revers de main ce n'est pas parce que maintenant émission bi ma def demb nga xamné xawna sédal touti compte tenu de ma nouvelle position par rapport à ce que j'ai je suis devenu cest la dire président de Sion Basket Club donc euh, cette posture là a fait que bon xeyna aussi dama xaw a suba tank mais bu que maintenant avocat de parti adverse bi dañuy yaakaar ne que ay ragal la wali mais maintenant a ko 24 vous faites retenir ñu le 24 eh bien vous faites institution position eh bien on va se défendre et ils verront exactement eh bien tout ce qu'il faut faire tout ce qu'il faut mettre sur la place publique je le mettrai sur la place publique jeex na wax li mu gàtt. Mhm. mu ngoog le marché fait ça tout seul. ak Jam coronavirus ba xam dana am impact bu yees ci li ñuy génne bitim réew di ko jaay filière mang nag moom wane jaaxleem ci wàllu woowee ca Ziguinchor ñi nga xamante ne produire li di mango seen xel dalatul ba sax nag ñuy xalaat ni jamono yi ñu toll ñu mën a exporter ci réew yu nekk ci Europe ci li ñu yaakaar sax ni moo gën mooy fexe ba daal di ci marché yi nga xamante ne ñoo nekk ci Afrique wala sax daal di jaay bu baax ci réew mi ci boppam Lamine Ba nag suñu naat naataango ba ne Ziguinchor daal ñu ciy defal benn taxaw seetlu ak ñi nga xamante ne nekk ci filière mangue bi lee donte sax jamono ji li nga xam ne moo di exportation bi dooragul waaye ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu mbéyu mango bi amee nañu tiitaange loolu ci seen ëllëg yaakaar nañ ne ji daal di ñu jaay li nga xam ne moo di seen i mango bi bitim réew Mahfouz Aydara moom moo jiite kuréel bi nga xam ne mu ngay ëmb ñu yëngatu ci wàllum de l'Union européenne actuellement tous les pays européens europe yëpp am feebar bi na exportation bi daanaka góoma góoma mu am daal parce que vu fekkee ne am ni le continuer yaakaar naa ko daal ci bu rëy sax ci bu rëy a rëy rëy bu rëy bu tax ci bu rëy ren nag am na yeneen pexe yi nga xam ne ñuy di yëngatu ci wàllu njaay bi fas nañ ko yéene lal buñ ci bëggee génn buñ sukkandikoo ci ay kàddu Mahfouz Aïdara ñu ngi jéem a jéem a maanaam bu ñu tuddati exportateur mën nañu xool région périphérique yi nekk au Sénégal a tamit ñu xool naka la ñuy lëkkaloo ak waa Mali waa Côte d'Ivoire waa Burkina Faso ñu jëm a def échange au niveau de a CEDEAO dans le cadre

toll nag amagul benn njeexital ci suñuy exportation waaye ngir docteur malik Diop dañu war a gën a liggéey ci yeneen xeetu marché yi nga xamante ne nag jotee guñu ak jàngoro ji di coronavirus ñu teewlu ko moom docteur malik Diop ci waxtaan bu mu sekk ak Abdoulaye Diop. Nous avons battu le record historique mondial dans le cadre de la croissance. xeex nañ ba gagné record mondial bi jëm ci croissance exportation bi yegg nañ ci téeméer boo jël fukk ak juróom-ñeent yoo toftal la juróom-ñeent yi ci wàllum croissance bi lu leer la ne feebar bii di coronavirus mën naa nekk lu gudd baal yées mën naa am ab jeexital ci wàllum échange bi yenn salon professionnel yi ak yenn ndaje yi dañ leen dàqandi lu baax la si ñun ñu gën a waajal suñu bopp waaye tamit ñu teg loxo yeneen xeetu marché yi yoo xamante ni virus bi laalagu leen yu ci mel ni marché africain yi ñoo ngi ci liggéey bi bu baax mënaguñoo def bilan kon du ma mën a wax am na impact am déet dëgg la sax am na ay salon professionnel yoo xamante ni dàqandi nañ leen yu ci mel ni Farmagoa xam nga ne Sénégal waroon na cee bokk sax waaye jamono ji mën nañ jàpp ne dina am ay marché européen yoo dana wàññeeku. des marchés au niveau européen euh, peuvent être euh, revus à la baisse. jaa ngeen jëf ci teewlu bi ñuy jaajëfal bu baax kii di Lamine Ba di jaajëfal itamit Abdoulaye Diop ak Assane Diouf bi nekk ci xarale gi le marché la woon ñu leen di jox dig daje ay bis yi di ñëw ngir beneen numéro.